Imam Makhtar Ndiaye ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors may préciser rek ne yaay chargé de communication imam ak ouléma yu nekk fii ci Sénégal. alors mhm. lu jëm ci li nga xamante ne mooy journée wu Arafat tey mën nga dellu si rek ci solo si mu am. waaw Arafat moom muy taxawaayu Arafat dafa bokk ci pilier aj daanaka mooy pilier bi ëpp solo sax ci aj moo tax Yonent bi sallallahu alayhi mu ne képp koo xam ni aj nga taxawoo taxawoo defoo taxawaayu Arafat daanaka sa aj baaxul yonent bi mu ne alxajju arafa mu ne moo tax ça veut dire que bisu neuvième jour bi war na fekk ñëpp arafaat nu dem station d' arafaat nu fekke ponk boobu ndax lu am solo la arafaat nag di bis bu màgg bis bu bëree ngëneel bis bu bëree yëw waaye itam bis bu sacré boo xam ni bisu jéggal la waaye bisu yërmande la euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ni euh, arafaat dafa nekk bis boo xam ni jullit bu nekk war nga ko màggal waaye itam bokk na ci ni nga koy màggal tam nga woor bis boobu képp koo xam ne doo pèlerin ajuloo màkk nga woor bisu neuvième jour boobu ndax la ci nekk ci nga neen moo am solo mooy njéggalu euh, euh, ñaari atuk bàkkaar dañ la koy jéggal Mm-hmm. Arafat di bis boo xam ni daf ñuy fàttali àllaaxira bis bi nga xam ne jaam yi dañuy dekk ci seen bàmmeel ne jàkkaarloo seen borom mu leen di àtte ku nekk mu fay la sa jëf bis boobu moom Arafat incha allah. muy bu màgg tamit ñu ci bëri xamuñu solom waaye ñi nga xamante ne tey jii ñooy woor euh, lan mooy seen récompense. waaw liñ ci gën a soxla nag mooy koor gi. Mm-hmm. te koor gi moom da nga cee jëlee yow yonent bi wax na ko mooy saw mu arafa yu kaffiru sanatan maadiyatan wa mustaqbala mu ne képp ku woor bisu Arafat la nga cee jëlee ci yiw ak ngëneel mooy yàlla jéggal la Euh, bàkkaaru ñaari at at mi nu génn ak at mi nuy ma kon loolu lu rëy la waaye itam bis la boo xam ne itam santaan nañ si jàng alquran ñaan yàlla euh, euh, yàlla def jàmm ci réew mi def ko def ci àdduna bi def loolu lu am solo muy ñaareelu journée bu tamit pèlerinage bi nga xamante ne ñoo ngi koy amal ca Màkka waaye tamit mu doon veyu bés bi nga xamante ne mooy tabaski ñu koy ñu koy waajal tey ji mën nga dellu ci solo su bës googu waaw fi googu nuy wax tabaski nag xam ni jullit bi dafay rey gàtt tuur deret ngir yàlla subhaanahu wa taala loolu sunna la sunna la boo xam ni bu war la ci bépp jullit boo xam ne attan nga ko ku ko attan sunna la ci yow waaye képp ku ko attanul tam daf lay wàcc ba tax na tamit dañ ci bay xel bu baax a baax bañ a yenn folie de grandeur yi ñu ciy def yenn pression yenn tension yi jaru ko sunna la ci ku ko mën ku ko mën nga def ko ku ko mënul wàcc la. Mhm. waaye nan waaw. Mhm. nan nga gisee tamit division bi nga xamante ne daanaka dañ koy gis chaque année at bu jot. waaw ah, division yi moom yàgg na fi moom ndax wax dëgg yàlla ku nekk doctrine wala école ba ngay roy ñun fii association des imams oulémas du Sénégal bokk tam ci CONACOC ñun dañuy def dañuy séentu bu nu séentoo bu nu gisee vingt-neuvième jour ah nu décrété bu nu ko gis tam nu complété ci loolu la ñuy liggéeyee màkk nag ñoom décrété nañu li ñu a Arafat mooy suba suba lañ décrété ak ah, comme mooy terre tam nu ànd seeg ñoom waaye ñun bu ñu toppee calendrier lunaire bi nga xam ne ci lañu sukkandiku ñun wax dëgg yàlla daanu ànd ak ñoom suba def arafat bi waaye tabaski bi ñun noo ngi koy jàpp jeudi vingt neuf incha allah fii ci Sénégal mhm. commission nationale de concertation sur le croissant lunaire. mercredi am ñeneen ñoo xamante ne jeudi lañu fas tabaski moom yàgg na fi moom division boobu du lu gën nag wax dëgg yàlla mais tam dañ koy bokk lépp ñaan yàlla tam division boobu ak xàjjaloo bi mais di ñaan yàlla di sabablu tamit ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi rek loolu la ñuy mën a ñaan incha allah. lu jëm ci xar gi tamit bëri na ñoo xamante ne dañ ciy am ay taamu ndax foofulee lislaam taxawal na fa euh, xar gi nga xamante ne moom la julit gi war a tabaski. waaw xar mi nga waree ci tabaski moom dafa war nekk xar moo xam ne dafay mucc ci ayib warul am benn gàkk warul am benn ayib. ba tax na yonent bi nee na xar moo xam ne dafa lagg wala xar moo xam ne dafa pat wala xar moo xam ne dafa feebar wala xar moo xam ne dafa yooy wala xar moo xam ne jën yi dafa damm wala geen gi kët wala nopp yi dagg xar yooyu kenn mën ne su ko tabaskee bu fekkee geen gi la wala nopp yi wala wala wala wala wala wala wala geen gi bu fekkee la ëpp ceer ba moo dem xar moom kenn mën ne su ko tabaskee xar mi ngay tabaskee daal na nekk xar moo xam ne day mucc ci ayib ndax képp kuy def sacrifice la ngay def sacrifice dam na nekk loo xam lu mucc la ci ayib mhm. rawatina jamono ji gis nañ ne xar bareetul waaye tamit cher na loolu ci ñi nga xamante ne ñoo koy jënd waaw seer na lool jamono ji métti na nanu yar njaboot gi ci xam leen ni jamono dafa métti xam leen ni tamit wax dëgg yàlla loxo yu bëri jotul seen ginnaaw ba na nanu yar njaboot gi et puis itam képp ku ci am tabaski ga rey ku amul tam bi na ñaari gàtt benn bi daf mu yéene si euh, képp koo xam ne yaa ngi ci xeetam ka amuloo loo tabaski lool nan si yar njaboot gi bu baax a baax xam ne ni nag wax dëgg yàlla du farata sunna la rek ci ku ko am mu def ko ku ko la bàkkaar nekku allah alors kan moo war a rey xar waaw ki war rey mooy boroom tabaski bi ki nga xam ne mooy boroom kër xam ne moo jënd xar mi kooku moo war rey tabaskeem euh, yéen ci njaboot gi yëpp bu fekkee dem na ba télé mënul rey wala mu am boobaa la muy def mooy ne ko ko reyal mu taxaw ci wetam daal di yéene kooku reyal mais li gën mooy mën nga moom nga sa bopp loolu mooy li gën boo mënul nag nga jox ku la reyal incha allah dara nekkul ñi nga xamante ni tamit wax dëgg yàlla euh, nit ki tam balaa ngay rey sa tabaski na nga bàyyi sa imam bi la jiite na rey ba noppi nga soo koy rey hmm. kenn du jiitu sa imam ci rey sa tabaski moo tax ñiy dem bu ñu julli ba noppi nanu déglu xutba imaam toog ba imaam rey ba noppi ba joxe ndigal ñoom la soo koy dem rey hmm. mais di njëkk rey sa imaam loolu moom daanaka yàpp rek am doo am tabaski ko jaay kenn du ko commercialiser amoo droit jaay ci lenn du mooy lu ñu santaane hmm, nan lañ mën a jàppale yi tamit ñi nga xamante ne ay néew si doole lañ amuñu moyen ngir mën bi waaw ñi néew doole wax dëgg yàlla nañ leen dimbale bu baax a baax dañ leen dimbalee ñi néew doole parce que islam tam diine solidarité la diine jàppalante la tamit jàppalante la ci lépp ba tax na képp koo xam ne euh, amul moyen euh, nañ ko jàppale nañ ko dimbale waaye tamit euh, folie de grandeur itam nañ ko moytu ci tabaski mooy di jënd ay xaru un million deux millions wax dëgg yàlla di wane jomba ñaaw ni nii laa day nii laa mais loolu moytu daal parce que tamit du du du lu ko defee yow sa voisin yaa def ba noppi fekk sa voisin yi nga dëkkal say dëkkandoor say propre mbokk amul lu nu rey loolu nga defee ne yaa ci nekk lool wax dëgg yàlla euh, comportement la yoo xam jullit bu nekk wax na ko moytu incha allah. alors ci gaspillage yooyu sax lay ñëw ndaxte ci événement bu nekk dañ koy gis mu jëm surtout ci ñun jigéen ñi lañ koy faral di ko gën a gis lan la ci lislaam wax yar njaboot gi tuñu bàyyi gaspillage ndax gaspillage moom yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko dafa bokk ci jëfi seytaan mhm. ba tax na aussi lépp loo xam ne nag nañ ko gaspiller rek nanu pensé bàyyi xel suñu dëkkandoor yi nga xam seen loxo jotul seen ginnaaw wax dëgg yàlla yar njaboot gi def le le le minimum nécessaire li nga xam ne daal mënul ñàkk daal nan ko def bàyyi yàq gi bàyyi pasak pasakee ndax jamono dafa metti tollootul foofu incha allah. alors muy bësu yi tamit baalante ak muy bësu jàmm est-ce que du occasion yi tamit ñu mën a échanger ci tension politique ci occasion la ci ñun imam yi wax dëgg yàlla daanu jàll suñu réseau yëpp sax ci Sénégal imam yëpp pour ñu xutba ci jàmm ci dal mooy lépp loo xam ne fitnal la ndax ku nekk gis na réew mi fan yi tension bi bare na fi ba na noo ngi ñaax jullit ñëpp wax dëgg yàlla nu ànd ak dal moytu lépp loo xam ne violence la lépp loo xam ne confrontation la nu moytu ko nu moytu ko moo tax xutba bi message yu xutba bi xutba imaam yi ci loolu la jëm nanu xutba ñoom ñëpp ñaax population bi ci nu ànd ak dal ànd ak jàmm euh, fexe acteurs politiques yi aussi nanu privilégier le dialogue et la concertation moytu lépp loo xam ne xeetu fitna la lépp loo xam ne fe xeetu tension la mën na xam ne tension mën na ko indi ci réew mi nan ko moytu te fexe yar njaboot gi aussi xale yi itam nañ leen di téye tamit dañ leen bàyyi ñuy taxawàllu ci mbedd mi dugg ci yooyu itam ni yàlla nañ ci bàyyi xel bu baax a baax incha allah kon mooy noonu maa ngi lay bu baax ci disponibilité bi jërëjëf ñun tam ñoo ngi leen di jaajëfal incha allah noo ko bokk ñun ñëpp may fàttali rek auditeurs yi ñuy déglu que yaay chargé de communication imam yi ak ulama wu Sénégal fépp merci beaucoup